ngir yëkkati ko man cee yokk ay làmp ngir mu gën a leer lal tepp yi daal ko décorer itam ba nga xam ne euh, dañ fi man dana mën a méngoo ak guddi gi ndax kenn ko xam guddi gi moom guddi la wax xam ne guddi gu màgg a màgg la te sëñ fonk lool tax mu yees laan ndigal li ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Rawdu-r-Rayahin ngir ko taxawee fii kenn ko xam tam sëñ bi tam incha allah day day fii itam barab bi itam dana am ñetti kuréel muy ak kuréel basran bi nga xam ne kilifa yi ñoo ko taxawee mu am jees bu mu waay bu mu xadamaat bu ko defee itam ànd ak nit ñi di durus ci focc na ci barab yooyu dañ koo war a euh, noos ba nga xam ne ñi si la jukki day mel si jukki muy xam alxuraan la moo xam ne xasida yi ndax kenn ko xam ne ne guddi gi ñun li ñu njëkk def mooy ubbeeku alquran bu defee xasida yi doo ko tàmbale lépp àndoo ca loolu day laaj ay yoon yoo xam ni kii dox naa ci mën dox ba du am benn jafe-jafe ngir mën a jox nit jukki ñu mën cee jàng mu man tam di ko delloosi waat ñu ko dajalawaat loolu lépp nag ci nose képp ci lay aju noonu te lañ ndox yéene nose damaa xam ne góor ñi ak jigéen ñi incha allah duñu jaxasoo su ko defee itam képp ku bëgg a siyaare ci biir barab boobu mën doon danga mën a dafa mën a àgg siyaare ci doo ci am benn gàllankoor incha allahu rabbi kon daa sëñ Abdou eh, ci tënk ci wàllu toogaay bi ak ci ak ci taxawaayu barab bi noonu lay demee ànd ak nag bernde ya nga xam ne kenn ko xam ne guddi gi doon dafa laaj bernde yaakaar loolu moom kenn ku ne xam ne sëñ bi noonu la ko daan ci njaareem bu ko noonu tam noonu la ko defee itam suñu tàmbalee rek bernde la tàmbale ba bañi ba bañi yëkkati jotaay bi ci diggante lépp lu ñu war a jëfandikoo rek moo xam muy ñamu sax suukar ak ñamu man doon rek suba itam ci incha allah ci bisu gàmmu gi itam ci bëccëg bi kese ñaa fi bu soo la ñuy yendu ndax fa la waañ wa nekk fa lañ daal tam lenn ci gan ñi su ko defee ñu man faa xewlu waañ wa itam foofa la nekk bu ko defee fa la ñuy waajalee lu ci ëpp mooy réer ak la ci aju su dee fii ci jumaa ji nag kenn ku ne xam na ne moom ndax jëkk yàgg nañ fee defar lu mel ne diggante ay kafe ki attaaya ak ak meew ak loo xam ne day xaw a saf suukar xam naa mbokk siñ bisoo bi danañ ko yittewoo lool loolu daal mooy li xam ne moom la commission organisation di nos di sàkku rek ci nit ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu dimbale ñu rek képp ku dégg suñu kàddu ci am yéene bëgg indi dara ñi nga xam soo indee dara am na ñu ne ci bunt yi ngir fas yéene gàttandu ngir boole lépp seetle ndoo ko ndax kenn ku ci ne xam na ne ñëpp am yéene bernde ci guddi gi waaye tam mbir mën doon tam ak nox da caa baax ndax suñ ko nosut mën naa ne gàllankoor te su fekkee ne kenn ko dafa jóg jaar nii kii jaar nii ñëpp lañu def baax na waaye am na lu gën ci li gën nag mooy ñun ñëpp maas àndoo rek mu doon benn ndax amaana suñ dajee mën naa indi jafe-jafe kafe yi tuuru ci nit ñi wala ataay wala lu liñ mën li ñu séddale tuuru ci kaw nit ñi ngir xat ngir xatu gu yoon ndax suñ bàyyee rek ñëpp maa jugandoo rek ñëpp am yéene kenn ku boo ne dara joxe ko waaye tam na sa xel dal ñu dal xel ñëpp ci ne képp fi ñu day itam su ko tegee ci loxo ci loxo ndaw yi dañ ko séddale lépp ba mu jax takk incha allah rabbi dara du fanaan kon daal ñu ngi soññu bokk yëpp rek ci loolu ñu dimbaleen ci ba kenn bay ñëw rek dem séddale boppam niñ ko bëggee itam mooy góor ci góor ñi jigéen ci jigéen loolu ñu ngi soññee ñëpp a baax su ko defee fépp waaye jaar tam ngir siyaare dana yomb jow boo siyaare noppi na nag ci yenn barab yi xam ne ni taqale ko góor ñax day am barab yoo ne barab sorte la ñëpp fay dajandoo lu mel suñu jigéen barab mag ba bay génn ci penk noonu ñëpp fay dajandoo góor jigéen ñi waaye foofu dañu fay ñaan tam góor ñi ak jigéen jaxasoo bañ a bëri bañ a jaxa bañ a jegeante lool ñu xaw a am uh, ak tuuti séparé seen diggante rawat naa ñi xam ne dañoo ànd seen waa kër nga xam ne dañu indi seen laltaay bu fa yéenee duna guddi gi léeg am ñoo xam ne dañ ñëw tam waaye taxay dañu sonn wala ngi mën dab leen ñu bëgg a noppaluwaale yooyu yëpp képp ku képp ku képp ku mu gaar boo ci àggee ñu ngi leen ñaan ga def ko foo xam ne daal jox soo ku du sa waa kër ndax itam xëy na nit ak waa kër la mooy gën a woyof nit ak góor jigéen gudu waa kër gudu waa kër di jaxasoo loolu tam nu mënuñ koo xamee ñu fi ñoo ko xamee ci kenn ku xam na boppam di ñaan tam nit ñi nga xam ne ñu ngi ñëw itam ci diggante li nga xam ne yàq la jamono léegi mooy mooy internet bi ba waxtu ne noonu la mën a ci gàtt ci gàttal ndax ni ma ko bëgg waxee ba biréer na ma waaye suri su li xew nga xam ne daal fu waaye toog fa ne da nga bëgg léegi ñu xam ne yaa ngi barab sàngam ba tax daanaka léegi su téléphone ci ngay nekk téer bi nga doon jàngal sax na ngay mujj far teg ne ngir bëgg ñi xam ne yaa ngi barab bi ñu fàttali nit ñi ne yooyu yëpp nañu bàyyi xel ci ne li ñuy photo di ko dugal itam na doon xam ne méngoo na ak barab bi ko téléphone nag téléphone photo la caméra la dugal ko nag wax dëgg na nag moom sa responsabilité bopp la ndax kenn ku ne am na lu baax loo mën a wane waaye am na safaan tam boo xam ne tam mën ngoo ba ñàkk a ndax su fekkente gis nga xam ne jaariwul waaye na dangaa jàpp ne li war na koo wane loolu xëy na njuumte la kon ñu ngi ñaan képp ku wane daal mu loo xam ne rafet na lépp loo xam ne tut bu bañ koo wane ndax kenn ku ci ne yaakaar naa ñaanal suñu borom suturaal ko kon nag képp woon gis na lu ayib mu bañ koo feeñal rek amul solo am solo rek mooy fu ñu toll daal di feeñal rafet loolu nag moom nit ki jëmoo ko def boppam ki am moo ko mën a defal boppam kon daal ñu sàkku ci nii daal ñu maas def lépp daal ci ndiglu sëñ bi te mooy dundal guddi gi dundalin goo xam ne day tege ci sunna ndax dafa na siñ sal li wax mooy tax sima bu sunnatin neen dafa mel ne ñëpp ci lañ mas dëppoo léegi defe naa kon loolu moom sin saylu waxam jooy day yóbbaa suñu wax ñun ñëpp rek kon ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ci ak jàmm ñu ngi def ci liñ ci war def ci day ci ngërëm suñu borom barke borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah wal tudxil al musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al wafi